bonsoir amis téléspectateurs ñuy am mbégte comme chaque àllarba mercredi si waxtu bi indi leen seen émission entre deux entre deux léegi je crois que xam ngeen concept bi leer euh, leer na leen nañ dañuy jël toujours euh, quelqu'un boo xam ni il est au cœur de l'actualité sénégalaise wala en tout cas waxam am na solo pour sénégalais yi gën a comprendre li nga xam ni moo xew bonsoir ñu ngi leen di nuyu yéen ñaar ñëpp euh, sëñ Babacar di la nuyu di la sant ci invitation bi. yow ak euh, Momar euh, Jong di leen félicité ci seen émission bi. parce que émission bi léegi dugg na ci paysage médiatique bi. Mhm. te chaque fois su ma ko seetaanee rek damay gis ni da ngeen di jox nit ki occasion. pour mu dugg ci des questions de fond yaakaar naa ne tey dinañu yegsi ci loolu jërëjëf. dëgg la donc pendant une heure trente un peu moins d' une heure trente nañu waxtaan si actualité bi dugg également en profondeur si nga xam ne dëkk bi fa la toll. xam nga sànq Momar bi may wax un homme multidimensionnel parce que boo xoolee parcours am bu ñu ko synthétiser euh, yombul nag euh, parce que vraiment. am na ay ndomo tànk yu bëri am na jaar-jaar yu bëri waaye dañ ko jéemoon a synthétiser daal di jàpp ni kat moom docteur en droit la Boubacar kamara inspecteur général d'État en retraite loolu euh, en retraite anticipée parce que moom moo laaj daal di génn IGE donc euh, inspection général d'État génn ci nekk également ancien directeur général des douanes du Sénégal loolu je crois que bokk na si fonction yi ñu gën a ràññee mais li ñu gënul ràññee nag te ma ko koy laaj léegi avant émission bi mooy avocat au euh, barreau de au de Paris loolu euh, loolu dinañ ci wax léegi avocat la donc mën nañ ko jàppee noonu mais en omission volontaire nañu expliquer en omission volontaire lan la mais avocat la ñu mën a jàpp ni au barreau de Paris la en omission volontaire expert maritime la Boubacar euh, Boubacar Camara ancien secretaire général également du ministère de la coopération internationale des infrastructures, des transports aériens et de l'énergie et ancien président du conseil d'administration de Sococim Sococim xam ngeen ko moo nekk entre Tëngéej ak Bargny fi ñuy defaree ciment bi loolu am na solo mais li ñu mujjee jàpp moom c'est vrai mooy ministère boobu mu nekkoon secrétaire général mooy ministère bi Karim Wade jiite woon foofu nekkoon ba léegi nag ñu constaté que ni élection 2012 yi Euh, dugg na en tout cas 2019 bëggoon na bokk ci langue bi waaye parrainage yi ñu ko laajoon jot faa yegg moom bu ñëwee dina ci gën a wax donc tey Boubacar lañu est-ce que am na président loo bëgg yokk ci présentation boobu walla am nga yow parcours bi lan moo la ci gën a marqué nga bëgg ñu gënoon ci waxtaan. Euh, jërëjëf parcours bi daal lenn moo ko gën a fësal firndeel ko. Mhm. mooy soldaar waaw soldaar mooy koo xam ne da ngay servir sa réew. Mhm. te doo ci bañ ñàkk sa bakkan xam loolu mooy sommet ci koo xam ne kii dafa am dévouement pour dëkkam foofu nag lañ lay jàngale toj sa xol jàngale yenn valeur u muñ yi yenn valeur u patriotisme yi yenn valeur u dignité yi loolu nag dafa nekk loo xam ne dafa ma marqué trop ci sama carrière maa ngi ciy profité di saluer suma classe yëpp euh, waa classe 81 ñoo xam ne ñoom laa duggandoo loon armée parce que da nga jaar armée ba pare doo ko dem douane. oui man en fait li ma dugal douane mooy man marin la au départ bi ma amee bac dama def marine marchande nekk officier de marine marchande. Hmm. loolu mooy sama spécialité loolu laa bëggoon def mënoon naa def beaucoup d' chose mais loolu laa bëggoon def alors euh, bi ma duggee foofu euh, nekk marine marchande mbuggu ma woon mënu yegg fi ma buggoon yegg. parce que eh, cours yi ma bëggoon def études yi ma bëggoon def jotuñu ma may possibilité def ko comme dama xawoon turbulent tuuti yi ay grève ak yooyu mm. Mm. bon je n'ai pas eu la possibilité de le faire ma demandé nag dem armée mm-hmm. pour mën a def fa marine ba pare continuer samay étude en droit mm-hmm. bi ma demandé ñu ne ma ok di ngeen d'accord nañu nga dem mais voilà yoon bi ngay jaar ci la incorporé wu nag volontairement armée dëgg la bi ma demee incorporé volontairement armée euh, douane jënd ay bateau soxla ay marin organiser concours yoo xam ne dafa am épreuve maritime ci laa def nag concours boobu pour dugg douane man en fait euh, comme ni ma koy wax en rigolant j'ai améri à la douane hmm. donc man hmm. euh, bato douane yi moo ma yóbbu douane hmm. ma dugg fa agent breveté avancé en même temps nag ma dem université di jàng def sa suma diplôme yëpp. bi ngay dugg douane ban niveau nga woon boobu. agent breveté. agent breveté mooy niveau BPC. Mhm. boobu fekk na ma am niveau bac. Euh, ba am suma diplôme officier de marine marchande. mais boobu rek moo ubbeeku woon pour man pour mun a def concours bi. alors ma def ko mais dama def deux ans rek def concours direct maintenant contrôleur. Mhm. comme ku doog a am bac. ma def concours direct on était 523 candidats yàlla dimbale ma ma admis parce que man kenn loon ñu def ko ma continuer ci marine bi loolu moo tax man bi may dugg douane fekk na ma def suma service militaire ba pare. Hmm, loolu am na solo. douane moom bokk na ci loo xam ni dañ ciy xaw a taxaw rek parce que lu la loo xam ni ci la Sénégalais yi gën a ràññee. Euh, lan moo la gën a marqué gis nañu ni boobu douane am na matériel dañ koy wax toujours comme lu mel ni gaynde wala yooyu ak jaloore xawma moment boobu daal duwaan dafa nekk si modernisation fas modernisation loolu mën nga ñu si may tuuti. waa li li ñu ci gën a marqué mooy dama fa def 17 ans fukki at ak juróom-ñaar jaar agent breveté contrôleur inspecteur mooy ENA bi ma def noonu. Mhm. liggéey fa ba pare nag nekk fa directeur général 4 ans. waaw muy ñeenti at ak fukki at ak juróom-ñaar muy vingt et un kooku euh, soo ko dundee sa génnee dund boo ko génnee dafay feeñ si boobu nag laa def concours inspection d'état man inspecteur général d'état concours bi mhm. moo koy def loolu moo ma génne douane mais dama génne rek euh, jël service motul quinze jours ñu nommé waat ma douane ma dellu si waat donc c'était un faux départ ñu nommé ma nag directeur général des douanes 2000 en 2000. en 2000 dafa méngóog accession président Abdoulaye Wade alternance bi exactement parce que man maa ngi admis inspection février ah jël service euh, le 3 avril ah le temps may euh, ma ma ma kii am gouvernement bu bees am 3 avril. quelques jours après euh, au mois de mai ñu nommé ma directeur général de. loolu mooy aller retour bi quoi moo tax ñu bare dañuy foog ne. Euh, dama nekk euh, douane ba pare génn ñu yóbbu ma IGE non c' est l' inverse ma njëkk a mm-hmm. def euh, IGE. E. concours admis ba pare doog dem douane. IGE boobu aussi tamit si sa demande comme li ñuy wax moom nga génn IGE lan moo waral. waaw loolu nag 2015 la 2015 boobu maa ngi jóge naa def ministère ba pare def trois ans nag 2012 ba 2015 nag foofu laa xoolee nag vraiment. Euh, situation Sénégal pour Sénégal changé lu bare. 2015. booy entre 2012 2015. foofu nag laa ne il faut ma jël décision si yaay jël décision nag revenir sur le terrain public moo taxoon ma taxawal en 2016 le mouvement Génération Y mais comme bugguma mu am incompatibilité. Mm-hmm. te comme j'étais IGE même si j'étais en disponibilité. Mm-hmm. ma demandé retraite anticipée loolu jaaxaloon na lu bare parce que dese na ma huit ans. te boobu bokkoon naa ci ñi gën a ancien foog naa ne foofu ñaari ñi moom fa gënoon ancien wala kenn ma génn nag pour m'occuper vraiment de de de la vie publique hmm. euh, sociale. mais alerte bi lan la lan nga lan nga constaté ni kat dëkk bi vraiment léegi il est temps que nga impliqué wu pour peut-être def politique wala dugg ci. bon loolu c'est alors que avant peut-être seetlu woo ko. waaw non yàgg naa ko seetlu wuu xam dama yàgg seetlu loolu mais dangay def choix toujours dans la vie. Hmm. da ngay seetlu est-ce que. mën nga ko def est-ce que nit ñi ñu ngi koy def comme il faut est-ce que yow doy na la est-ce que bon tu te poses beaucoup de questions mais daal li ma gën a frappé mooy dama gis ne état bi ci boppam dafa mujj nekk benn genre machine wu xaalis presque cest que ñun état bi ñu xamoon avec de hauts fonctionnaires euh, le service public jéem a def lu baax bëgg ñu bëgg ngóora et mais état bi dafa mujj nekk genre machine boo xam ne machine enrichissement la personnel ak familial da ngay gis koo xam ne kii fii lay toog di ñaan lu mu naanee ataaye jékki-jékki mu dugg ci état bi am ay poste gannaaw suba ñett nga gis ko doo ko xamee ba pare mu boole ci nag benn xamadi boo xam ne doo xam sax noo koy waxee loolu ça m'avait beaucoup frappé et ñëpp ko jooy ah loolu loolu kenn mun ko werante mais commencé woon na déjà avant 2012. non commencé na mais daawul feeñ tellement parce que xam nga médiatisation bi dafa dafa fësal lu bare. Mm-hmm. peut-être yàgg na fi sax mais médiatisation bi dafa fësal lu bare. surtout que parce que yow bi ngay nekk quand même ah, ah, si ministère euh, euh, ministère de l'énergie pour ne pas citer Karim Wade boobu fekk na les gens reproches yi ëpp yi ñu doon wax le régime du président Ablaye Wade mooy euh, cette arrogance. ah ñàkk soucié wu ak aussi enrichissement bi parce que dafa mel ni si nguuram Ablaye Wade aussi la nit ñi commencé concerné non xam nga 2000 2000 dafa am benn événement bu am Sénégal dañu am UEMOA ba pare prix pétrole bi vraiment baissé c'est vrai ñu def une alternance libre et démocratique Sénégal ubbeeku quoi par exemple ñun malgré désarmement tarifaire bi mais les recettes commençaient à augmenter donc dafa amoon benn engouement nit ñi commencé am xaalis foofu nag le gars yi commencé rakkaaju <laughs> mais foo gis nag gars yi rakkaaju ngay dugg mais bon mais si tu es fonctionnaire da ngay rester à ta place nga rester sa périmètre tu fais ton boulot et tout ngay dem commencé gis ay affaires et puis boo nekkee IGE xam nga da ngay gis ay rapport gis euh, suites yi ak yooyu finalement da ngay jaxle kooku mooy premier constat bi transformation de l'État en un instrument d'enrichissement personnel et familial. kooku moom c'est un constat. bu ma amoon droit tudd ay cas. mën naa leen nettali ay cas yu dul jeex. bon ñaareel bi mooy utilisation État comme instrument de combat politique c'est le règlement de compte te boobu la ñu laawaale nag bu bare justice bi ci yu bare. Mm. mais ñun on a on a eu des cas moi personnellement j'ai eu même un cas quand j'ai quitté la douane quand on a voulu me faire la guerre. mais il y une instrumentalisation boo xam ne mm. c'était la justice. ba pare nag ñu boole ci presse bi boole ci yu bare donc ces de choses la je dis mais est-ce que man am naa droit li ñu liggéey ñun ñii ñëpp. Mm. ñu toog di seetaan mu yàqu suñuy loxo. bu ëllëgee lan la ñuy wax et puis surtout position yi ma yàgg occupé mm. boo ci noppee. waaw dañ naan saa ji dafa nu muy rek parce que ci la bokk. wala am na ci intérêt. donc tu te dis nga waslu ax. et ñu def analyse dama jël cabinet. ne ko analyser leen ma ban fan laa war a mun a intervenir pour être plus utile à ma société. ah oui ah ma ñetti possibilité nga am benn bi mooy social bi ngay def nga continuer ko parce que man je suis très au aux orphelins. fan nga fekk baax. ah man euh, parenthèse avant fi ñëwaat man bi laa juddoo yaroo fi sama parent yi juddoo Fatick yaroo donc man je suis entre Fatick ak Dakar. Hmm. et si sama côté yaay y une partie boo xam ne Bambey la Euh, si si ñett yooyu laa bokk. Mhm. donc continuer social bi. waaw ñu ne ma nga def social. dama buggoon def benn fondation jirim pour les orphelins. beneen possibilité bi moom mooy nga entrer en politique ñetteel bi mooy nga encourager les jeunes def un mouvement pour pousser les jeunes pour développer ce que j'appelle la plateforme intergénérationnelle que mag ñi. di wax ak xale yi pour ñu def échange ci la créé mouvement génération Y en avril 2016 ci laa liggéey nag deux ans ànd ak xale yi ñu créé ay cellules partout au Sénégal ñu ànd dugg am na xale yoo xam ne mosuñu woon génn Dakar am na xale yoo xam ne xamuñu woon sax la mooy wanag da ngay ñëw gis ñu ne leen fii wanag la ñu ne xamuñu ko parce que mosuñu xam dara ñu woon leen nag lan lan mooy valeur xale Ndakaaru non xale yi partout dans toutes les régions on a fait le tour du Sénégal cinquante huit cellules Il y même un livret, euh, malheureusement, qui, qui n'a pas été très bien diffusé. Qui est livré, c'est le livret sur les préoccupations de la jeunesse. Il y a 40 et quelques recommandations sur les préoccupations de la jeunesse. Mm -hmm. Donc, foofu euh, la ñu mën a ñetti possibilités yooyu nga am ci laa dem nag def mouvement génération Y. Mm mais mm -hmm. je me suis dit que doyul parce que boo buggee changer dara da ngay def proposition moo tax soo gisee ñun ni ñu defee politique. souvent lu ñu teggi rek am na lu ñu fa teg entre deux mille quinze ak deux mille dix huit nag. ci la ñu nekk une trentaine de personnes ñu lëlu nag di waxtaan ci Sénégal naka lañ koy transformer je te oh. dis fu nekk dem nañ def ay statistiques ay ay études fay par exemple sur la question de la sécurité ah fay nañu huit millions ay experts ba ñu génneel ñu tout le schéma sécuritaire qu'il faut au Sénégal suñu xaalis la ñuy jël di fay économie culture agriculture yëpp ñu def ko 2015 ba 2018 2018 nag bu ñu paree ñu ne la ñu engagé wu politique mais dans les faits dafa mel ni génération Y moo jiitu jengu oui waaye dans l'état d'esprit dafa mel ni jengu bi moo jiitu génération Y. waaw jéng parce que da nga ni da nga am ay nemmeeku yoo def. surtout ci état bi niñ ko transformé en instrument de richesse. mel ni ku bëgg fipp nag dindi loolu defe naa moo waral. exactement nga dugg ci wàllu politique. waaw loolu moom boo ko dee seet. dans le faits cette génération Y. moo jiitu moo antérieur. en terme d' état d' esprit dafa mel ni jéngu bi moom ngay gën a jiital te moo la dugal sax ci wàllu politique. parce que mm. bon moom ma dugal sax ci lépp soo ko seetloo ci suma carrière yenn grève yi ñu doon def yenn vie associative yi yenn cooki yi parce que man booy grève là aussi. waaw man y' a y' a ce vocabulaire guerrier aussi quoi. waaw mais loolu euh, ñun parce que xam nga. moom moo tax nga bëgg a nekk maire Grand Yoff. ah loolu na ci ñëw loolu moom xam nga loolu mënul ñàkk parce que boo nekkee dans de dans des zones yoo xam ne vous êtes défavorisé. Mm-hmm. vous vous sante abandonné. ah ngay patax patax ci poto poto yi ba léegi sax ah. moo fa nekk sama sët yi ñu ngi patax patax yi ci poto poto yi. Mhm. donc nga ñëw am kër yoo xam ne ay baraak la ndox mi bu amee inondation amul ay ay foofu yëpp àll la woon mais du ku la laal rek da ngay fone daf la mhm. xeeb quoi donc finalement dafay créer benn esprit révolte. boole ci aussi kaaw Khalifa Sall. mi nga ni woon ci ay jamono. Mhm. lii nag mooy dernier manifestation <laughs> injustice bi dal ci waa Grand Yoff. loolu ñun ñun ñëpp dañ ko ressentir comme benn doomu grand parce que Khalifa ñoo màggandoo defandoo politique moom mu nekkoon PS euh, ma nekk RND euh, Antoine Mendy nekk PDS. ah jaar nga RND. oui def naa trois ans RND ba pare dem dans le mouvement de gauche cest à que partout ñun dañ on déteste l'injustice donc injustice moom bokkul ci sunu sunu ay donc jéngu bi en fait c'est un état d'esprit mhm. qu'on léegi nag bi ñu nee ba taxawal génération Y euh, aidé xale yu bare bi ñu duggee nag en politique dañu dugg politique non pas parce que dañu bëgg nag euh, président moo tax bi ñu dugg politique ñun on n'a pas dit que dañu nekk candidat à la présidentielle avant ñu dugg dañu waxtaan ak homme politique yu bare ñu ne leen wur ñu wut candidat unique pour jéem a changer situation bi ñu waxtaan ba d'accord mm. mais après ñu instaurer parrainage bi gars yi ne bon c'est pas la peine nañu xaar ku am parrainage ñu soutenir leen loolu moo tax ñun déclaré ñun candidature dañu dem ci fippu moom compétition ñu désigné ñu comme candidat c'est en ce moment qu'on a été candidat mais mais jaaxalu la que euh, nga xalaat ni après d'après seen enquête yi ngeen def que il faut nga dugg ci politique pour mën a impulser changement au Sénégal loolu loolu noo noo ko jàngate ah loolu moom c'était une bonne chose ah parce que euh, mënoo def leneen lu dul politique par exemple pour euh, bokk ci changement au Sénégal xam nga ku ku mënul bawoo lu yàqu yow waaye ku mën te defoo wala ku yaakaar na mën nga te defoo lu yàqu ci nga dëgg la te solution alternative yi c'est des solution de fond soo jëlee par exemple inondation mën nga jël sa xaalis jënd pompe mën dimbale nit ñi mën nga dimbale ñi sonn et tout ah. mais au fond d'accord inondation c'est une solution politique bu ñu nee jël leen xaalis ñu dugal ko ci inondation bi ñu dem na xaalis bi hmm. wala ñu ay jël ay solution yoo xam ne baaxul yow quelque que soit aide boo mun a def du sotti chaque année on va retrouver la même situation donc finalement ku bëgg a changer réew il faut nga politique parce que boo politikul ñeneen ñi ñooy politique ñi nga xam ne dañuy ras dem bu ñu politiquee ñoom seen bopp la ñuy régler dem toog fule bu changer changement régime amee ñu dem ànd ak régime bu bees bi noonu la ñuy def ba abadan daay man donc comme xale yi dañ yàgg seetaan nag daaw ñu intéressé wu ci politique waaw ah ñu ne leen nag na ñu intéressé wu ci vie yu bi après nag nañu engagé wu mais de plus en plus maintenant tu vois comment les jeunes sont engagés en politique moo tax sax gars yi di jéem a galgal xale yi primo votant yi pour ñu bañ a voter ak yooyu parce que xam nañu ne ñoom seen situation métti na te xam nañu comprendre nañ léegi que politique dafa am importance mën nañu tàmbali si comme ñu ngi si politique d'ailleurs ci livre bi waaw ca bokk si livre bi waaw que livre bi waaw mm-hmm. euh, bi ñu ma ko indilee la livre mm-hmm. euh, dama ni waaw góor waay mm-hmm. taamu nañu ci homme politique yi ñuy bind ay téere di wax ni ñu gisee réew mi ak yan mébét la ñu am waaye su ma waxantee dëgg nag bi ma ko liiree ba pare xaw naa am déception mhm. déception bi ma am mooy livre bi 32 pages la exactement waaye li ëpp ci livre bi yow lañ ko jagleel mhm. sa personnalité alors que dañ ko titré construire le futur mhm. ma ne woon de xëy na su ma ko yéree dinaa gis li nga xam ni moom nga naal comme ay mëbët yoo xam ni bés bu yàlla tegee réew mi ci say loxo moom ngay jëmal jëmmal pour réew mi changer mais contrer bi laa gis mu mel ni culte de personnalité euh, gis naa ni sax ñu ngi la ciy wooyee kama mhm. même kama bi nee nañ a bi nga xam ni dañ koo def chapeau mhm. li muy firndeel mooy ku yëkkatiku gis naa ni itam livre bi li tax mu jóg mooy fexe ba nit ñi ràññee la comme ku amul moroom ak ku ràññeeku dem nañ sax ba mettre l'accent sur le fait que ci sa parcours da nga passé de la gamelle mooy yooy nga xam ni soldat su ndaw si ca la ñuy lekkee aux étoiles maanaam ku yëkkatu donc mel ni culte de la personnalité la ñu livre bi gën a jaay que projet de société lan moo waral loolu alors euh, poser nga question bu am solo c'était très difficile pour moi d'accepter ce projet-là parce que dafa am ñaari livre mm-hmm. bii ak changer de cap changer de cap c'est un livre de dix chapitres qui explique naka la ñuy changer Sénégal du début à la fin mm-hmm. livre bi parti bu tuuti rek lañ ci wane vision bi ak naka la ñu war a quelles sont les grandes mesures ñaari page page la wala ñett ci chapitre boobu waaw ñuy wane les caractéristiques de l'engagement politique waay jërë wax lan nga mëbët ci état bi ci état bi ci ndaw yi ci jigéen ñi voilà waaye tuuti rek tuuti rek lañ parce que vocation livre bi mhm. euh, c'est que bi ñu commencé politique maa ngi woon 2018 engagé wu soo leen seetloo sama discours yëpp on met l'accent sur nos propositions mhm. da ngay wax Boubacar kamar sax ñu ne mais kan mooy ko xamuñu ko mais dañ ko dégg non il a des idées pertinentes et tout mais xamuñu ko man damay dox sax si mbedd mi gars yi duñu la sax xamee mais c'était un choix politique ils disent que fii ñu toll nii soxlawuñu développer notoriété li ñu soxla mooy développer la crédibilité de ta proposition mm-hmm. moom la ñu def dans tous les combats les combats de principe sur la démocratie les combats contre les injustices les soutiens politiques qu'on a fait tous les choix qu'on a fait ak débat yi ñu def yëpp sur les les matières premières sur l'intégration africaine yëpp mhm. dañu wone ay idées idée rek la ñu wone xam nga wone sa bopp moo gën a yomb surtout ak réseaux sociaux yi mhm. ak euh, li fi xew et puis su la yàlla may tuuti loo mën a mhm. loo mën a wone woo dafa yomb tu peux faire un branding développer une communication boo xam ne bii mënootoo romb fenn te kenn du la xam mais sama communication man ay ay kàngam laay liggéeyal ñu ne pas de notoriété aujourd'hui c'est la crédibilité yàlla may na la tuuti charisme notoriété bi jotagul bi ñu demee nag ba pare sunu liggéeyu programme ñu ne na ma balaa ngaa génne sa livre sur le changement de cap pour wane fi nga jëmale réew mi mais da ngay wax waa réew mi yaay kan moo waral lii déglu rek moo ko waral ma ñëw ma ma ne man ñoom réew mi xam nañ ma ñu ne non xamuñu la da leen di wax yaay kan nag pour nga bañ leen a bett ëllëg pour ñu bañ a foog ne amoo morom justement parce que yàlla rek moo amul morom yàlla rek mooy kenn ca pàcc bi booy jàngee ul wallahu ah nga xam ne yàlla kenn la. waaye fii dañ ne identité unique. waaw et remarquable. non identité remarquable pas unique. unique si. non mi ngi ci. non xëy na def laa échappé mi ngi. non non identité bi. non l'un dans l'autre sax yaa ngi tombe comme ni ko Momar euh, inquiétude Momar bi. dinaa ñëw yaa ngi tombé si culte personnalité boobu nga xam ne. culte personnalité euh, moom la moom la ñeneen ñi nekk. elle est peut-être c'est important ñi lay xelal que nii yow euh, c'est important que nit ñi xam la mais est-ce que finalement ce n'est pas le piège. boo xam ni. mën nañu ma ton da nga ma laaj rek maa ngi ñëw. xam nga fii Sénégal am na ñoo xam dañu leen élire ba pare doo ko xam ñooy ñan <laughs> liñ ñu woon ñu ngi bëgg a dee xam nañ ko parce que xamuñu fu ñu jaar duma joxe exemple donc nit ki boo buggee jiite da ngay transparent ak sénégalais yi nga wax leen yaa yaay kan foo jaar foo yaroo foo juddoo foo jëlee foo amee lu tax fan nga jaar ba jóge fii parce que neewoo cëpp ne lay de la gamelle aux étoiles moom la wolof di wax foo jaar day am ban boo jaaree ci ban épreuve yi ban force morale nga am pour jaar fa pour que ëllëg Sénégal bu amee jafe-jafe nga nekk ci kanamam est-ce que am nga neer yu lay permettre nga taxaw ci am na ñoo xam ne lu la këtt rek ñu yuuxu parce que mosuñu nekk ci épreuve da ngay gis koo xam ne mosoo commandé ñaar fukki nit man bi ma nekkee presque xale lañ ma jox douane ma war ma commandé mille six cent personnes. boobu yaakaar naa trente ans nga am. trente te boobu j'étais je faisais partie de l'avant-dernière promotion de la douane. Mm-hmm. ma admis IGE quelques jours après ñu jox ma ma diriger douane donc benn promotion rek laa gënoon ancien ci douanier yi. mais ba léegi président. ba léegi non non ba léegi <laughs> non parce que damay bañ euh, ngay euh, logique boobu la nekk ba léegi de. xam nga bu fekkee Sénégal dañuy reprocher souvent président yi ne leen seen entourage ñoo yàq dëkk ah Abdou Diouf baax na waaye ña mu àndal ñoo doy waar Ablaye Wade ku baax la waaye ña mu àndal Macky Sall na changé entourage am est-ce que ça aurait pas été mieux. ñu xaar la ko yow ña nga àndal pour sumb liggéey bi pour diriger dëkk bi est-ce que gënul woon nga gën a insister si ñi nga àndal ci liggéey bi que yow nga kii parce que régime présidentiel boobu rek a outrance nga ñu yóbbuwaat après. non ça n'a rien à voir parce que yow rek sa bopp nga indi. alors que ña nga àndal am nañ solo pour liggéey. sumb non non non loolu dina ñëw. et soo ko liiree sunu livre di nga xam ne ñun on est contre ce type de régime et boo liiree lii sax di nga gis ne on parle d'équipe pour la présidentielle. on programme équipe candidat et loolu la ñu defoon au niveau de FIP. donc li nit ñi daan bañ def et c'est très sensible de parler de soi personnellement. Mm-hmm. Mm-hmm. li nit ñi daan bañ a def di bañ ñu reprocher leen culte de la personnalité. Mm-hmm. ba ñuy nëbbatu ba nit ñi nga xam ne ñii dañ leen di jox suffrage duñ leen xam loolu la ñu kase. c'est vrai ah, borom xam-xam borom xam-xam bi da newoon na le moi ay haïssable. le moi est haïssable moom la ñu mos développé bañ nañ ko ba on n'a jamais voulu organiser les choses comme ça. Mais dafa nekk une nécessité publique aujourd'hui avec l'ouverture, les médias, la la la le le le buzz que les gens développent mmh. sur une petite information. benn petite information mën na la détruire. Donc il faut que nga joxe des éléments précis sur qui tu es réellement. yan épreuve nga traversé fan nga jaar dans ta famille yan drame nga fi am naka nga ñefee ba jógee fii ba yegg fii est-ce que yow dañu la jël biberon dugal ko sa gémmiñ mm. est-ce que da ñefeel sa bopp loolu c'est des traits de caractère que tu mets de l'avant pour que xale yi mën ko gis te c'est une demande forte de tous ceux qui m'ont approché les enfants ñi nga xam ne daanaa liggéey ñoom ci génération Y rek dañuy wax mais grand li ñuy nettali nii danga koy bind mm. ñu xam ko ñu xam yow yaay moi j'assume entièrement ce choix pour développer d'abord la notoriété une notoriété positive sur loo xam ne lii mën na nekk exemple bi peut-être am na ay défauts. am na ay moment où aussi on fait euh, l'éloge des trucs médiocres c'est important. toujours que ah, alors Sénégal ñu am li ma wax sànq boo bàyyee pouvoir bi. n'importe qui ñëw am na ñoo xam ne ñi on seen tour ñu ngi koy dégg conseil des ministres wala remaniement bu leen bu leen nommé est-ce que vous pensez que loolu normal la. ñu nommé nit ñu naan kii mooy kan ñuy wuti photo journaliste di wuti photo <laughs> loolu de bëri ñu jox ko responsabilité publique jox ko budget public mais loolu moo war a couper. bëri na loolu léegi nag ku ñeme na def. léegi ba attends ku ñeme na def. te am na ñoo boo leen waxoon ñu bind seen parcours aujourd'hui am na chapitre yoo xam ne dañu ko remplir et c'est cet cet exercice la loolu laa invité nit ñi moo tax bi ma amee. bi ma nekkee douane gars yi di ma indil ay coow ak yooyu xam nga lu ma def mm. déclaration de patrimoine 2004 j'étais le premier publier ko ne leen mettez-vous à cet exercice c'est ça le courage politique c'est ça l'une des valeurs yoo xam ne sam papa loolu la ma won nee na ma il faut être courageux et honnête bañ a mooy moytu nag aussi euh, bëgg wane sa bopp yóbbu ñu ci li Pape et Cheikh woyoon ni bu leen wengal gaal gi <laughs> euh, bu dul man du bu dul du baax non loolu moom du mu bañ yóbbu ci loolu non loolu moom sunu humilité mhm. Euh, même parcours politique bi ñu def wane na ko bi ma defee euh, campagne ba nga xam ne élimine la nañ ma parenage gis ngeen attitude bi ma am je suis soutenir Sonko sans condition mu def ma superviseur campagne am mosu leen dégg ma revendiquer ci dara ñun gëmuñu ne nit benn nit. Mhm. mën na defar réew. gëmuma aussi que li ñuy wax naan entourage bi moo bon ak yooyu non pour moi le responsable. soo ko bàyyee mu def xelam lay demee mm-hmm. bu dee dafa am programme changement de société mu leer ñu surveiller ko mécanisme yëpp fonctionner dinañ ko surveiller mais boo ko bàyyee mu dem le pouvoir mais ça rend fou et plus de pouvoir nga koy concentre sa loxo da ngay mujj dem ba fone yaa ko moom da ngay am ce que j'appelle la conception patrimoniale du pouvoir et boo leen gisee les les les propositions yi ma def mm-hmm. sur euh, dans, dans le livre di nga xam ne on est loin de sa kon livre bi daal bi ciy tegu mooy changer de cap. changer de cap. li mu nu nag mooy yow mi waajal nga sa bopp pour deux mille vingt quatre. ba ngay jóg. Mhm. ba ngay jóg nee nga nekkoon président taxul a jóg waaye léegi nag mel na ni léegi leer na. non waxuma nekk président. xamle sa bopp sénégalais yi muy benn. waaw ñaar def benn livre programme loolu ku ni taxawee. c'est parce que lii ñu dëgmal muy deux mille vingt quatre bëgg nga cee samp sa tënën. non man waxuma ne tax nekk président taxumoon a jóg sunu stratégie mooy que bi ñuy dugg en 2018. di def mm. sunu engagement politique. dañu def un engagement pour entrer en politique mais on n'a pas fait un engagement mënoon naa yeew rek na man je suis candidat mais j'ai jamais di à personne que j'étais candidat j'ai di que j'étais candidat quand FIPO m'a désigné comme candidat à la suite d'une compétition loolu c'était ça le projet. Mhm. bi loolu passé 2019 ñu créé parti commencé liggéey léegi nag liggéey nañu de ba ba am doole nag léegi commencé nañu pare on est implanté on va aller aux élections euh, municipales. Ouais. Et, euh, et territoriales léegi. Uh-huh. am nañu programme fixé tabax. jéngu nañu boole ci tabax léegi. construire buñ ñu joxee tey tey fépp ngeen jéngu ngeen léegi tabax. léegi bu ñu joxee tey tey tey tey bu ñu joxee tey <laughs> eh. ah. ubbi tey jàng tey bu ñu joxee réew mi tey tey waaw ñu ko doxal ko kon nag ñun pare nañu waxuma la 24 24 dama su jaar jaar yi waaw avant 24 dama su élection locale yi moom daanaka ñu ngi si euh, bala ñuy dugg élection locale yi euh, pour wax si yeew yi euh, lan moo la booleeg Ousmane Sonko dañuy gis ni c'est la deuxième fois jàppale nga ko élection 2019 waaye amaan na beneen coalition boo xam ni ne Yewwi yaa ngi ci biir euh, c'est vrai boo xam ne Ousmane Sonko encore mu ngi ci lan moo la lié ak euh, Ousmane sonk xam nga daje rek daje ci politique rek daje bi may dugg politique waxtaan na moom mu waxtaan ak man ma déglu ko mu wax ma fi mu bugg jëm ma wax ko fi ma bugg a jëm yoon yi nekk benn. ni ñuy doxalee. mën na bañ a nekk benn yoon yi nekk benn bu ñu demee ba ma gis ne parrainage bi dem na ma analyser ñi fi ne te yaakaar naa ne les faits m'ont donné raison boo xoolee candidats yi fa desoon je rien contre eux <laughs> foog naa ne. ñoom ñëpp daanaka fekk xaw ma lu ñu def <laughs> waaye daal te it mu won ma. jéggi nañ tale bi de mu won ma loo xam ne lii. Hmm. ah tant que mu ma koy won du ma am moom problème. même bu may génn ci coalition am bi may décidé yeewu ne man damay defar sama tabaxu bopp. Eh. parce que pare naa suma liggéey. yeewu ne analyse politique bi ma def ñu def benn bloc yëpp terewul toujours on a gardé cette même ligne parce que àndu principe bokkul ak lu dul àndu principe. léegi bi loolu weesoo it coalition bi du coalition man Sonko. dëgg la coalition ñu bare la ñu d'accord aussi coalition ànd ci. ci hmm. ay principe. da ngay mujjee wax da nga cité PDS si membre coalition yi. est-ce que génna mu bettu la. non man cité mu PDS ci membre coalition. ah tudd nga tudd nga tudd nga. ñi si waroon initiateur la ñu initiateur la ñu woon waaw. ñeenti initiateur entre temps génn na. après moom mu génn. waaw yow loo ko gisee kii bi bokku ci. waaw yow noo ko gisee yow mi nga xam ne. non loolu xam nga àndandoo. ah Bougane tamit génn na démb. non xam nga. Euh, man li ma intéressé. xam nga boo bokkee ci coalition xam nga lan moo la intéressé. waaw ñi ci bokk. ah waaw ñi ci bokk ak ñi ci mën a bokk <laughs> waaye ñi ci bokkul bëgguñu cee bokk na ñun dem leneen ñu yàlla jàppale leen seen yoon ñi ci bokkagul nga fexe ñu bokk ci buñ ci mënut a bokk it même ñi ci bëggul bokk bu ñu def investiture au cas par cas ñu fexe ba am des listes gagnantes donc ñu am une investiture intelligente donc ñun du ñu focaliser wu ci kii bokk na kii bokkul loolu amul solo li am solo mooy c'est un fait historique. Mhm. coalition bi ni ko taxawalee ça a pu quand regrouper des gens qui ont fait leur preuve ñeenti initiateurs yi même bu fekkee PDS gën def nañ seen preuve ci wàllu politique. Mhm. ñeneen ñi ci ànd aussi def nañ seen preuve et dañuy ñaan mécanisme yi ñuy taxawal ah euh, bu bu. responsable communication wu coalition bi expliqué di ngeen gis ne mécanisme yi taxawal vraiment nit ñi dañ ci réfléchir di ñaan population yi ñu commencé récupérer le pouvoir local bu fa jógee récupérer le pouvoir législatif ba pare récupérer le pouvoir présidentiel ba pare mu am une vraie rupture boo xam ne bokkul ak li fi am mais récupérer comment Momar à euh, quelques mois des élections euh, locales te coalition bi c'est vrai am na ñu ko doon woowee triptyque XL léegi nag est-ce que seeni ambition doo leen ko wàññi par rapport à la composition euh, euh, euh disons coalition. mais yàlla moo ci wàññeeku coalition bi. dañu woo ñëpp dañ ko dem la. dañu woo mais ña nga xam ne ñoo fa nekk. am na ñu ñëw lan la ñuy représenter lan la ñuy représenter du point de vue suffrage. mais on verra. avec les élections des parce que am nañu am nañu mandarga passé loo xam ne 2009 mais qu'est-ce qu'il représente peut-être à part le président Ousmane Sonko nga xam ni génn na troisième ci élection yi entre-temps Khalifa Sall peut-être euh, euh, bokkul woon élection yooyu pour nga xam man nga natable surtout que am na ñu bëri ñoo xam ni quitté nañ ko entre-temps nekkoon ak moom au niveau de Dakar Eh, eh, yow malheureusement euh, majo mujjoo dem élection 2019 ban repère ngeen mën a am ba commencé di am ambition ni da ngeen di récupérer grande ville yi non xam nga mm, élection dafa am ñaari électeur mhm. dafa am électeur bu feeñ mooy ki yore kartam mhm. waaw dem dugg ci urne bi voté ak électeur bi laxatu dëgg la électeur bi laxatu mooy li nit ñi di dund tey aujourd'hui situation nit ci àll bi boo ko gisee gis li ñuy daj gis situation li nit ñi di daj ci ville ak inondation yi hausse des prix problème yi am ci éducation yi problème yi am ci santé yi mbëkk mi mbas mi. yéen de campagne présidentielle ngeen def. non dama lay expliquer. <laughs> non c'est-à-dire nit ki bu yeewoo. te situation avancé wul. waaw. mais dafa reculer yaakaar nga ni le pouvoir local mën na changer yow est-ce que xam nga quartier populaire mën na changer definam ki nekk euh, Mbadakhoune wala bokk euh, sa dëkk Fatick mm-hmm. est-ce que le maire bu fekkoon euh, seeni nit fexe nañ ba nekk maire Fatick que ça peut changer si nekkinam. waaw moo ma la dafa am parce que est-ce que du ay élection locale ngeen bëgg ko jox un enjeu national boo xam ne amu ko. dafa am enjeu national mais dinaa ñëw ci loolu c'est-à-dire que bu fekkee ne am nga pouvoir local bi. Mm. yow est-ce que yaakaar nga ne li ñu li ñu jaay ci suuf luubal ko ci maire yi Sénégal yëpp buñ ko dajale woon ci xaalis. mënul construire ay école wala ay ay hôpitaux wala yaakaaroo loolu. mën na nekk est-ce que yaakaaroo ne détournement yi ñuy def ci mairie yeeg yenn faux mandat yi yëpp bu ñu ko réglé woon munul réglé xale yi ñu am ay emploi donc su ñu amee une bonne gestion des mairies déjà on règle au moins une partie des problèmes ensuite am na réforme yoo xam ne mun nañ ko def ah pour que investissement gën a am doole ci mairie yi loolu am nañ ci ay idées électeur bi nëbbu mooy électeur bi nga xam ne bii dafay interpeller sénégalais bi nekko ko ce que yow bugg nga li fi nekkoon continuer est-ce que bugg nga ñu delloo bumba ca booy booy ba kooku day wax déet bu boobaa nag lay tànn kan lay àndal ñun dañuy fexe ba coalition bi ñu tànn ko mm. crédibilité boobu ngay wax ak pois électoral bi mm. chaque élection lañ koy mesurer am na ñoo xam ne gëj nañoo dem élection c'est vrai PDS demul 19 demul 2019 mais est-ce que mun nga weddi poids potentiel lu PDS. léegi li Babacar wax. nii peut-être bu leen am optimisme béya. Mhm. ne di ngeen reprendre ville yi. boo gisee mu wax ko xëy na dafa am ñaar yoo xam ne am na parce que loolu ngay wax nii. Mhm. mi ngi fi woon en 2017. bi ñuy dem élection législative. législative waaye ba ñu xaajaloo. opposition bi gis nañ. modd raw gàdd bi ni mu permettre Benno Bokk Yaakaar même bu fekkee ni bu ñu nattee li ñu am ci xob yëpp moom coalition bi. Mhm. li ku jëgi amoon moo ko ëpp. mais xaajaloo bi tax na ak raw gàddu bi moom mu gañe li ëpp ci député yi benn loolu lu bar bàyyi xel la leneen li mat a bàyyi xel te ñu bëri di méngale peut-être 2009 ak élection locale yi ñu jëm du benn mm. parce que 2009 dafa fekk kujje gi lukkaloo ci assise nationale at ñu koy waxtaan di diisoo di nasandoo bëkkoolu te ñëw seen biir mm. bi ñu waree ànd doon benn say mu dal di yomb xam nga jamono yi sax Ablaye Wade mi ngi doon saboté opposition bi naan opposition de salon la. Mhm. mooy salon danse ko ba nga xam ne fa lañ daan dajale di nas li mais li ko wutalee kujje gi moom mooy kóolute gi dafa des. te li jàpp mooy lu néew néew. peut-être dina am ñetti coalition yu soqe ci ci kujje benn am na seen coalition yéen. Mhm. Khalifa Pastef pur ak ñi ñu àndal. Mhm. ki ci génn démb muy euh, Bougane nee na dina créer coalition gëm sa bopp. commencé na te njortu nañu itam ni PDS ak Pape Diop ak Mamadou Diop Decroix xëy na ñoom it ñu beru def seen coalition. donc lu mu néew néew dina am ñett loolu xaajaloo lay indi même bu fekkee réew mi metti na te bu ñu demee ci jogante bi raw gàdd bi di jouer xëy na boo moytul la ngeen yaakaar ne di ngeen ko jël ci ville yi xëy na boo moytul ngeen dóor seen loxo ci yëkk bon alors dafa am ñaari fee yoo wax yoo xam ne yii dafay justifier ñu war a ànd. 2009 ànd gagné 2017 bañ ànd. tasaaroo bañ bañ a voilà. donc boo amee ñaari expérience yi. di nga xam ne ànd bi am na solo. mais dafa mel ni fi mu ne bay way na mbuus. non ci ànd bi non moom laa lay expliquer. àndin bi nag dafa am lu koy yombal am lu koy jafeel li nga wax ci 2009. li ko yombaloon mooy dafa am benn liggéey bu ñu defoon ci assise. tout à fait mais bii ñu jëm 21 li koy yombal mooy que le maire il est élu au suffrage universel direct cest à que personnalité bi ñuy jël ne ko yaa nekk candidat maire kenn du tëju ci ay néeg après conseil municipal di jënd ay conseiller c'est pour mm. mu nekk maire. donc kooku bu convaincre population yi parce que ñun ñi ñuy jéem a convaincre yi de. wala journalistes yi wala analystes yi ñun ñi ñuy jéem a convaincre mooy population yi ci quartier yi se à dire ñi nga xam ne da ngay yeewu da ngay guddi ut cent franc dem uti sa ndambe ah wala nga ñëw war a jëndi fourniture amoo ko ah wala nga ñëw war a faju di sox sa feebar parce que da nga naan bu ma demee ñu jox ma ordonnance ñooñu la ñuy expliquer pourquoi seen situation mel nii mais loolu bàyyi leen koog ñun rek. da ngeen ñaanal foofu itam am na lu ma a leeral <laughs> c'est-à-dire xëccoo yi ba yore ko. tekkiwul ni que da ngay changer dund ni nit ki. parce que exécutif. pouvoir local am na ah. fu mu yem. moom la wax léegi am na fu mën mënam yem. waa mais loolu laa. boo yoree maire yi. Mhm. yor maire. bokk la ki nga xam ni moo yor. l' exécutif l' état central exemple Khalifa Sall leeral na lépp. bi président Macky Sall décidé ni. joxatu ko moyen de sa politique. voilà pour Dakar. mais daanaka daf ko néewal doole. waaw mais xam nga li ma d' accord ak yow. mooy que maire dafa am pouvoir fu mu yem. Mhm. mais kan moo ko fa yemale. ay texte ñoo ko fa yemale non. texte ñu changé yu ñu mën a changé heure bu leen neexee. bon alors ñaareel bi mairie dafa am vole investissement am volet fonctionnement. mairie yi ngay gis ni yëpp quatre-vingt pour cent yi fonctionnement mais même ci biir fonctionnement boobu dafa am façon bu ñuy joxe secours yi façon bu ñuy dimbalee nit ñi boo xam ne c'est tellement politisé ba ñu bare duñ ci jot. donc dina am lu muy changer ci population yi bu ñu gisee changement bu ndaw boobu am day nekk benn frisson nga ne ah ñii nga jox leen euh, lii rek lu tuuti lii rek ñu dimbalee ñu ci ba suñu situation commencé changer tuuti école yi ñu defar ko euh, am na école yoo xam ne boo duggee ci toilette yi dangay ngay waaru. Hmm, jeex donc nga gis ne ah ñii moom bi équipe municipale bii ñoom barewuñu moyen mais dispensaire bi am na ay seringue am na commencé nañu defaraat nañu ba mu sotti nga ne ñii kat bu ma leen joxee législative. Hmm. ah ñoom dañuy expliquer lii de laa mën a def waaye su ma amoon droit ba changer acte troit def ko acte quatre def intercommunalité jël ci budget état bi ay investissement su les cinq cent et quelques commune nga voté un budget d' investissement pour chaque commune loolu laa koy def danaan ah boo indee sa liste député ma votel la noonu lay demee ñun dañu am approche progressive moo tax coalition bi ñi ko étudier wu bu baax rek dañuy jël rajo bi di wax rek mais c'est une logique pourquoi ñu ne du ñu yem ci local dañ koy booleek législative pour avoir une liste commune pour avoir justement la le, changement jël majorité bi pour changer les lois mais il y a des lois qui ont été votées ici qui sont des lois liberticides yoo xam ne pour changer ko il faut nga jël assemblée boo paree nag nga dem présidentielle mais présidentielle ku nekk mën nga am sa candidat mais il faut moom am un accord eh. programmatique comme en 2000 bu boobaa da ngay ñëw ne man sama tabax a ngi nii voilà les points que je trouve essentiels kii ñëw na sama programme mu ngi nii kii laa trouvé essentiel ñu discuter d'accord sur quinze points onze points nga xam ne boo ki ki munti gagné bu ñu ko jàppalee deuxième tour mu gagné bu toogee du xaar bu ma mot onze mois rek mu dàq premier ministre bi toogaat ci quelques mois mu dàqaat ah wala nga mujj ñëw ne ñëpp dàq naa ñëpp man maa fi nekk maay buur bu mi justement loolu moo tax entourage amul solo entourage Sénégal loo nekk entourage politique bu chef d'État ci système électoral bi. nu mm. euh, système institutionnel bi. loo am am doole gis ngeen ko dañu jékki-jékki rek juróomi nit pan ñoo xam ne ñii tout le monde pensé ku ci nekk war nga mun nekk numéro deux. da euh, ancien régime bi c'était même chose temps wu Senghor c'était la même chose donc affaire entourage c'est un faux problème il faut mettre des régimes forts. un homme fort nga non il faut un régime fort. il faut un homme crédible dama dem seeti tey euh, benn imam dama doon visiter benn quartier foofu sama siège bi nekk sa ma seeti imam bi ñu ñaan mu ne ma xam nga lu yàq Afrique ma waxul sax Sénégal mu ne ma parce que ñiy yore état bi dañuy dañuy jubul dañuy jël alal bi di ko luubal bu ñu ko defoon ci réew mi mu sotti ma ne ko gis nga statistique OCDE OCDE, c'est l'organisation commune de développement en Europe euh, dañu ne cent quarante deux milliards de dollars moom la ñu luubal lax ko bitim réew. ci africain yi. ci Afrique cent quarante deux milliards de dollars te Afrique boo jëlee cinquante milliards de dollars defar nga infrastructure yëpp ba mu sotti tali yeeg gaar yeeg. école yeeg hôpitaux yi boo ci yokkee vingt deux milliards de dollars ni Europe di dundee TGV yeeg yëpp c'est-à-dire que dafa mel ni rek nga jël Europe transporté ko indi ko donc moitié avec 72 milliards de dollars. moitié bi c'est-à-dire que moitié li li li li dirigeant. li ñu luubal africain yi luubal. mën na defar mën na defar Afrique. <laughs> loolu bëri na sans compter nag les ressources naturelles. yi nga xam ne du jeex les réserves. te kenn exploité wu ko. donc ku la wax ne mënuñu développer réew. wala ngay euh, pessimiste. mais Grand Yoff. noo xam dama bëgg ñu taxaw tuuti Grand Yoff bi nga xam ni yow sa ambition peut-être c'est pour diriger Grand Yoff la commune de Grand Yoff. Mhm. aujourd'hui euh, lan nga gis euh, par rapport à exemple yi nga joxe yan changement nga bëgg nga bëgg a indi foofu. bu fekkee jox nañ la dëkk bi en 2023. waaw encore que Grand Yoff foog ñu bàyyi xel parce que Grand Yoff. Hmm. fiefu Khalifa Sall la. te am na fa lieutenant boo xam ne mooy maire. yeewi ba léegi ma Diop. Euh, Diop loolu lu ma bàyyi xel la situation yooyu yeewi d'ailleurs euh, voilà. comment vous allez vous entendre euh, démarche bi c'est simple. Mm-hmm. ngay seet ndax yow sa contribution biir Grand Yoff. Mm-hmm. fii nga yem war fa nga war a yem yow sa bopp walla mën nga dem plus loin. ñu ngi de mën naa dem plus loin population yi laaj la ko ñoo ne la wax dëgg yàlla. sonn nga ci dëkk bi yàgg nga def lii lii lii lii waaye daal dëkk bi toll na foo xam ne fii bëgg nañu nga ñëw nga dem sa parti sa parti ne la ñun de bu doon suñu sago mun nga présenté wu Dakar mun nga présenté wu Grand Yoff mais ñun nga présenté wu ñu Grand Yoff moo la gënal ba tey parti bi la man nangul leen ko donc man bëgg naa ko sama parti d'accord na ko hmm. ñu dem nag bokk coalition mais coalition bi ñun ñëpp ko bokk yàlla def ci biir coalition bi sunu mag xalifa nekk fa am taxaw bu ko neexee mun na reconduire euh, ki fa nekk ne moom mooy candidat bu ko neexee mu indi beneen candidat bu ko neexee moom ci wàllu boppam ndax moom moom mu ñëw moom mu ta <laughs> nekk léegi ñun tamit ñu ñëw nañ ñooy candidat mais kan moo koy tranché kan moo koy tranché coalition bi moo tax ma ne leen bu responsable communication coalition bi ñëwee mm-hmm. dina leen expliquer mécanisme yi ñu def en place dañu am des comités au niveau communal départemental pour mm. defar investiture yi mu am comité national d'investiture bu koy prévoir comité national boobu bu amee litige moom mooy dem ci conseil de médiation et d'arbitrage mu régler ko mu am conférence des leaders mécanisme bu ñu ko respecté même dans les cas où dafa am xuloo ba amul liste sax les cas de défaillance même sont prévus bu ñu décider dans l'intérêt de la commune. il vous reste plus beaucoup de temps de. waaw euh, pour il, la euh, les non, octobre la euh, calculé parce qu'il y a des délais pour déposer les listes te gars ñu commencé wu ñu léegi de euh, élection bi. Hmm. préparation élection locale moo ëpp ferveur ci élection yëpp. léegi nag bu boobaa. moo ëpp taux taux d'abstention. bu boobaa bu ñu décidé ne diw moo fay mooy nekk candidat liste bi nii lay tëddee kii mooy jiitu kii mooy nekk adjoint au maire et tout ku nekk tiré ci say conséquences ah. dinañ am équipe au contraire le fait que ñu nekk ensemble c'est un avantage ça nous garantit ah de gagner la commune et c'est ça qui est important il faut voir toujours le bon côté des choses mais yan changement le pouvoir aussi def na plein de choses xam nga bu ñuy wax inondation bi sànq euh, Grand Yoff yaakaar naa inondation yi wàññeeku nañ fa bu baax de am na partie boo xam ne euh, defar nañ ko parce que ndox mi dootu fa des mhm. mais am na partie boo xam ne ba léegi mu ngi fi parce que liggéey bi yeggul xam nga lu tax yeggul affaire inondation hmm. ah euh, dinaa dellu si suñu amee occasion si yan changement la ñu bëgg def Grand Yoff et ah, lan mooy les grands problèmes ah. inondation dafa am ñeenti problème Sénégal bu njëkk bi mooy li état war njëkk a def mooy ubbi tiroir yi xam nga luy ubbi tiroir <laughs> ñëw étude yi ñu def pour le risque d'inondation man dama am chance bi ñuy nekk 2009 ci ministère euh, de la coopération ñun ñoo yore woon aménagement du territoire bi ma njëkkee ñëw dama woo waa aménagement du territoire man leen génneel ma carte euh, Sénégal ak carte Dakar ñu génneel ma carte yi depuis 1952 boo gisee carte yi da ngay gis mu marron nii mu mu am ndox nii nga gis yoonu cours yi. chaque année chaque cinq ans dix ma génne carte yëpp ba gis ne fi ndox mi daan jaar. léegi dañ ko dëkk. parce que à partir de 73 dafa am sécheresse sécheresse bi am pendant dix presque. pendant ce temps nag comme tawul gars yi les partis au pouvoir ñoo doon jaay parcelle dix mille dangay jënd carte parti bi ñu jox la parcelle dix mille ñoom ñoo dem occupé jël yoon yëpp ñu ne Pikine irrégulier ay ay waxinaan ay patati ils ont créé des quartiers sur des des des yoonu ndox des voies d'eau des après nag bi ndox mi dellu see ñu am problème premièrement soo ubbee tiroir di nga xam les risques d'inondation fu mu nekk am na zone yoo xam ne bu ñu fa dindi woon ne ñi mhm. dinañ ko def comme Venise nga xam ne day am ay ndox yu jaar nga jël ay gaal def ay tourisme am na ay garab yu fa nekk surtout soo demee ci ginnaaw géeje waaye génn Pikine un paysage extraordinaire donc première chose à faire mooy loolu nga jël ci nag les conséquences conséquences yi mooy lan un nga def un plan de relogement am na place yoo xam ne kenn waratu fa dëkk état bi jël responsabilité relogé leen deux Dakar fees na ah <laughs> mënuloo jël population bi ni ñu toll nga def leen sur ah quatre-vingt-trois kilomètres carrés il faut changer la façon de loger nga transférer capitale bi ñun dans notre programme par exemple dans le livre on explique comment on amène la capitale à Thiès et comment on fait de Mbour une région ak une zone touristique avec la vocation. mais Thiès soriwul de du question sori justement parce que une capital administrative soxla mu sori sa dépend ci fu mu dumóoyu rek. boo dumóoyoo jëm si dakaar bien sûr day fees mais dafa am nooy dumóoyoo jëm booru xombol di nga développer un aménagement boo xam ne nit ñi dinañ dëkk dans d'excellentes condition am énergie am eau am ay école à proximité am santé nga indi la santé itinérante kooku dañ ko étudier ba mu sotti kooku mooy première chose booy def ubbi tiroir yi. mais ñoom ba léegi ubbeeguñu tiroir yi. Mhm. risque inondation yi tant que analysé woo. mais mais noo noo jàngatee ci topp nag. ngir yi am na yeneen quatre. yu non def na yeneen trois. yeneen trois kii moom moom demal demal demal demal dama bëggoon euh, dama euh, par rapport aux dépenses. yi nga xam ne def nañ ko si inondation yi mais boo joxee se propositions ñu ñëw si. waaw ñu ñëw si comme ça ñu. ñaareel bi ñaareel ñett yi nga gis nga réseau d'assainissement eaux usées mhm. boo xëccee ndox. ci douche bi yow doo xalaat fan la ndox mi jëm. yow bu doon saa yoo duggee ci sa kër nga dem wanag ndox mi fa lay nekk nga yendoog moom. du sotti mais dalay lay wóor ne ndox mi dafa dem parce que dafa am réseau d'assainissement eaux usées bu koy yóbbu ba mu dem géej est-ce que fii am na réseau d'assainissement eaux pluviales. est-ce que am na réseau buy récu buy buy gérer le ruissellement parce que ndoxu taw nga bàyyi mu yàqu dafa am loo war a récupérer. pour réutiliser ko est-ce que loolu am na Sénégal. mais moo a bassin de rétention yi. ba mais déglul loolu taf yëngal la xam nga boo nee ba inondation ñëw 2005 affaire bi ñëw coow li ne kur nga ne naa def bassin def ko fa bàyyi ko fa foofu mu nëb euh, façon yu nekk nekk fa loolu du liggéey da ngay am un réseau d'assainissement des eaux pluviales un schéma de maitrise de ruissellements un schéma de détournement des voies d'eau am na ndox boo xam ne bu fa jaaree day yàq day yàq tali nga bañ mu yàq tali ci booru tali yi dafa am ay ay ay rigole yoo fa daan def. Mhm. yoo xam ne ndox mi dafa fay jaar. eau pluviale bi warul ànd ak eau usée yi am na eau usée boo xam ne mën nga ko defaraat pour utiliser ko pour arroser cest à dañu ko liggéeyul quoi en enfin pour pour te dire sérieusement l'investissement qu'il faut faire mhm. pour l'assainissement des eaux pluviales mhm. amul Sénégal commencé nañu am na ay projets yoo am importance mais loolu mooy deuxième problème troisième problème mooy la surveillance des constructions et des transformations yow sa koñ da ngay jékki-jékki gis ku ñëw dagg fatt benn tuyau wala ku ñëw tabax ci benn tuyau yoon yi même yoon yi nga xam ne canaux yi dañ ci war a jaar pour gaz bi Sénégal nit ñi dañoo dëkk ci kaw way loolu gisuloo ko <laughs> chaque jour ñu wane ko alat gisoo yoon yu nga xam ne hmm. ay ndox ki def fi war a jaar filu électrique yi dëgg la ah am yoo xam dañ ko war a suul booy def aménagement du territoire il faut un plan d'aménagement du territoire consensuel ñu ne fii ay école fi war a nekk fii ay mosquée fi nekk fii yoonu ndox la fii kenn du fi dugg fii nii lañ koy doxalee fii kenn du fi jënd terrain fii la ñuy wax zone bi kenn waru fi euh, tabax am na ñoom dañuy dem ci booru géej mm-hmm. ñëw tabax looloo taxoon a jóg ZAC yi zone d'aménagement concerté concerté waaye jëmmaluñ ko mais loolu laa la wax c'est-à-dire que bu fekkee c'est pas c'est pas concerté mm-hmm. ñu def un plan ñu dem assemblée nationale ñu ne voilà le nouveau programme Sénégal lii lañ koy dëkkee ba kenn du yàqal kenn fii la marché yi nekk. Mhm. mais marché da ngay ko toog sa ngay am sa boutique sax ni ñëw toog sa kanamu boutique. donc plan di jaay donc donc actuellement programme décennal euh, de lutte contre les inondations loolu gisoo ci si si am na solo. Ah. léegi am nañu plan même plan bi ma lay wax nii am na de. Ah. plan d' aménagement bi ils l' ont dañ koy revoir encore. Mhm. mais plan bi day dabe. parce que yow comme réaliser woo risque d' investissement day dab. c' est kooku mooy problème. quatrième bi ñu war a def. Mhm. c' <coughs> est la prévention et la surveillance. waaye saa yi dëkk boo xam ne lu nit loo neex def loo fa mun def tam fu mu jëm. ndax saa amul sanction amul dara. ah attention léegi nag nee na nag euh, woo na IGE nag ba nga nekkoon daal di ne pour ñu xool xaalisu euh, programme de fan la dugg. loolu rapport la loolu am na solo. non loolu mooy dañu kaas ñëpp ne léegi. nee nga da nga def sept cent cinquante milliards. waaw jël rajo bi ne jeex na. Ah. ah ñëw def rapport ne nañ def rapport nga ne non non non nañ def commission parlementaire. assemblée ñëw ne dugal nañ tant pour cent. non mission d' information. mission d' information waaw. 511 milliards dugg na. waaw te exécution bi. 38 pour cent 38 pour cent. loolu léegi yow boo waxee loolu. gars yi ne la bon non non daaw la ren affaire bi ñëwaat. ba delloo ci boy boy ba. Eh. gars yi ne la waaye saa il dugal xaalis bi surtout que récemment. Eh. dañu dugal xaalis. ba pare faciliter paiement bi mais xaalis boobu laa ne keroog bi may def émission. ma ne nañ ko auditer pour xam parce que nag. deme ni nangu na ko léegi. yee amul pexe. parce que ah. c'est trop flagrant. léegi nag ñi nga xam ne dañu nekk ci chaîne bi. Ah. lu fël Sénégal marché ñu jox leen ko. moo tax may wax réforme de la commande publique <laughs> il faut ñu réformer la commande publique pour xam ñan la ñuy jox marché yi que ça soit transparent. et du travail. et du travail. ça aussi c'est yow bu dee Momar Jong dañ laa jox marché. Mm. ñu publier ko ñu ne Momar Jong jox nañ ko marché temps dafa def compétition nii la gagné comme niñ ko niñ ko waxee waaw nit ñi dañ xam ne ah d'accord nañu Momar Jong war na ko mun def ñu surveiller la nga def ko publiquement dans les quartiers les mairies yëg ko les associations yëg ko ñu ne fi tel jour lay commencer tel jour lay jeex ñu discuter ko contrôler ko mais il y a pas de contrôle les gens font ce qu'ils dans ce pays da yore benn saak bu ndaw rek to boo bokkee surtout ci pouvoir bi ñu jox la marché nga dem di ñëw loolu nanga nga mën defee ñii di gas ñii di suul donc je te dis c'est ça le changement. fekk nga ñuy wax ni daal la corruption euh, utilisation de l'argent public daal bokk na si si euh, taaru taaru. mais lu ma la wax cent quarante deux milliards de dollars te ku nekk ak sa technique nag réew moo dem am na façon technique am mais l'essentiel daal la ñu jël ci argent public bi. bàyyi fi soxla population yi. mais les corps de contrôle lan mooy seen seen liggéey yow jaar nga IGE. mais loolu la ñuy euh, def euh, corps de contrôle boo ko joxee rapport. waaw day étudier lépp dem sur le terrain laajte daal di génne affaire yi ne la kii lii la def lii moo jaar yoon lii jaarul yoon mais jox ko président. président nag moom mooy set lu mu ciy def. am na cas yoo xam ne am na autosaisine comme OFNAC am na cas yoo xam ne amul autosaisine mais dama ne la gis nga affaire réew. Mhm. du caxaan. affaire u réew. Mhm. dinaa la laaj léegi si si situation morose ñëpp a ngi koy wax. Mhm. Euh, gis nga sax prix. denrée yi ni mu yokkee ni mu flambé ba ñu bëri naan naan ah dëkk bi de mais nag teewul la gouvernement jël na ay mesures pour parer à toute éventualité yow noo jàngatee situation boobu. lépp yokk loolu da leen bett nii. <laughs> bett la Sénégal moo neex. yokk bi. yow kon yokk bi da leen bett. ah am na ñu ne Covid bi de xamoon nañu fii lay mujj. non mais attends yow boo amee réew. depuis 60 nga am indépendance war a defar ay industrie transformer ce produit agricole dugal xaalis ci mbéy mi <laughs> transformer ko dugal xaalis ci élevage ci ci ci napp gi ci ci ci càmm gi dugal ko ci artisanat bi nga xam ne mooy occuper population bi li nga amoon kas néew ci industrie nga bàyyi ba mu daanu nërmeelu ah lépp nga koy jégaane lépp nga koy jégaane ci li ngay jëli waaw ba <laughs> pare yow nga ne nga ne yow da ngay am autosuffisance alimentaire foo koy jëlee ba pare amoo autosuffisance alimentaire nga dépendre ci prix pétrole bi prix pétrole bi yenn saa mu yokk aujourd'hui mu ngi 60 dollars en plus Covid bi ñëw Covid bi mu ñëwee conséquence bi mu njëkk am mooy dañu arrêté transport aérien yi marchandise yëpp di jaar ci bateau. Hmm. gars yi am clients yu bare yokk bato aujourd'hui le fret a triplé lu doon jar fukki dërëm ah. léegi mu ngi jar euh, mu ngi jar euh, trente francs. loolu nag c'est des facteurs exogènes mais loolu la loolu facteur facteur exogène la. waaw mais commerçant bi bu importé. Hmm. fay fret bu gën a cher. ah état bi fey facture pétrolière bu gën a cher commerçant bi fay facture pétrolière bu gën a cher parce que moom produit bi ñuy jënd da koy importé. Hmm. bu ñëwee dédouané bu koy jaay client bi nu muy def. yokk du ko ci teg ah. loolu mooy indi premier premier os léegi nag mesure état bi day wane ne amuñu woon solution xam nga lu la mooy seen mesure. <laughs> par exemple TCI avant 2000. dañ daan protéger suñuy entreprise dafa amoon système mu précision boo indee produit bu jëm ci usine li muy fay ci taxe du bokk ak produit boo xam ne dañ koy consommer directement moom lañ doon wax tarif des précisions boo indee produit mu nekk matière première dañ koy wàññi. pour nga mun a transformer. bu dee nag dañ koy consommer da ngay fay tarif normal. 2000 bi ñu taxawalee UEMOA dañu dindi tarif précision ne léegi réew yëpp bokk UEMOA ñoom ñooy bokk tax moom la ñuy wax teg tarif extérieur comment te kat amul libre pratique de boo dédouané Mali boo ñëwaatee Sénégal da ngay dédouané de amul amul libre circulation mm-hmm. sauf pour les matière euh, les les produits du cru mm-hmm. ah mooy yi ñuy yooyu ak yi ngay yi ngay witt ak yooyu mm-hmm. xam nga mécanisme baaxul léegi ñu ne naka la ñuy protéger entreprise yi. Mhm. suukar bi ñu ne dañuy def TCI taxe conjoncturelle à l'importation donc en attendant que société bi def suukar mën a produire temps yooyu cent vingt mille tonnes. Mhm. te quatre vingt dix mille la mun def dañuy fexe ba entre quatre vingt dix mille et cent trente mille tonnes yi. Mhm. képp kuy importer da ngay fay TCI tax bi ñun ñu koy appliquer sous forme de péréquation. mais dafa ànd ak chaque six mois ñu xoolaat ko dafa ànd aussi que usine bi fabriqué def benn programme pour autosuffisance mmh. mais état bi surveillewul loolu yëpp hmm. bu amee maintenant si marché mondial bi augmentation wala mu am pénurie même une pénurie organisée état bi ne léegi comme bugguma coow am bugguma prix yi augmenté naa wàññi TCI bi wala ma supprimer ko dañ ko supprimer pour quelques jours quarante quelques jours. quarante jours la. même chose lañu def pour huile bi tax taxe d'ajustement à l'importation yow nga am gerte di wax ne ay millions de tonne ngay def au lieu nga taxawal ay usines ñu koy transformer nga jël. huile bi nal waaw nga jël ko jaay ko ay chinois. ñu dem jënd ko. Eh, indi la diwlin bu bon yow li nga amoon si ñu indi la <laughs> diwlin bon boo xam ne bii da ngay taalaale muy saas boo ko lekk boo ko naanee am cancer ah boo ko lekkee ba pare ñu indil la usines yi nga amoon kas néew nga bàyyi ñu démantelé la mburu mi même chose farine nga ne man dama doon dama doon euh, taxe TVA farine bi 18 pour cent la normalement defoon naa ko sis léegi bàyyi naa ko Euh, pour mburu mi bañ a yokk waaw pour mburu bañ a yokk <laughs> muy 47 milliards yoo xam ne yow sa danga nga ne perte la état bi sax dafa ne perte la milliards lañ ci ñàkk ne nañ donc yow sa bopp amuloo schéma industrialisation Sénégal xanaa loolu de euh, daf ñu war a yóbbu ci ñu remettre en cause li nga xam ni moom lañ seetlu ci at yëpp eh. nga xam ne douane des fois li muy fëgge dënam mooy <laughs> def naa tel nombre de recettes ay milliards nangam am na ay jamono defe naa juróom ñaari at ci kan ci ginnaaw bi ñu passé kapu 500 milliards de recettes yi. dañ taxaw di applaudir léegi defe naa sax ñi ngi dëgmal kabu 1000 milliards. waaw de recettes. loolu li muy tekki mooy yow sa recette yaa ngi ko yaakaar. importation yi rek ci li nga produit yi nga koy dugal. mais pas ci li ngay produire yow. exactement. mais yéen yéen ngeen euh, ci seen programme. Mhm. loo xam ne boo leen ñëwee di ngeen investir tendance. voilà léegi loolu laa lay wax balaa ma jàll ci douane bi. ñoom noonu rek la ñu mën def parce que dañ la sant liggéey ne la auteur recette. pour li ñuy importer. boo ko liggéey ba mu baax nga am ci recette da ngay kontaan yow sa liggéey loolu la. mais fekk na yow boobu. sa tissu industriel. ak sa production justement mais ñoom. Euh, politique économique bi. c'est pas la responsabilité de la douane. c'est la responsabilité de ceux qui sont élus. Hmm. ñoom ñoo war a am politique industrielle ba nga xam ne importation day wàññeeku. dëgg la mais tant que yaa ngi importé di jaar ci bunt bi ñu lay fayloo normalement. c'est bien donc j'en profite pour rendre hommage à la douane pour liggéey boobu ñu def maintenant li gën a garaaw c'est que pour nga mën a même liggéeyu tax boobu ngay def pour nga def ko il faut nga moderniser sa administration dañu tardé moderniser moom lay wax toujours réforme yi defuñu ko bi ñu demee ba ñu def réforme yi par exemple aujourd'hui kenn amul boucle fiscale bi cest à kenn mënu la génneel contribuable sénégalais yi war a fay yëpp de A à Z te aussi ni ñuy fayee ko nit ñi système déclaratif moo ci ëpp système déclaratif ñu bare du ñu déclarer. da ngay changer xam nga lu ñu def ñu créer benn taxe tax de conformité fiscale prélèvement de conformité fiscale ça veut dire que boo nekkul en règle booy importer marchandise dañ lay taxe douze pour cent. ba pare def trois pour cent taxe modernisation de la douane muy quinze pour cent waaye yow li nga wàññi woon est-ce que jëlaatoo ko <laughs> jëlaat nga ko. wàññiwuñu dara finalement ba pare bon même su fekkee da nga ne bon modernisation dañ ko daan jël mais su fekkee 3 pour cent yi douane yi ci travail supplémentaire bi nga ko daan jël c'est pour quelques opérations nga ko doon jël ah bu dee ci prélèvement informatique douanier si quelques déclarations nga ko doon jël mais léegi da généraliser def ko ci base bi valeur CAF. bu gën a métti impôt moom moo moo gën a graw bu gën a métti si yi muy 15 pour cent donc ñun suñu programme justement dañu ne il faut transformer deux choses les produits miniers qu'on une chaîne de transformation locale et les produits qui viennent de l'agriculture de la pêche de l'élevage etc boo ko defee tu as des industries tu as des emplois tu n'as plus de chômage moo tax mais depuis qu'on en parle mais loolu loolu je crois que c'est devenu une chanson tellement populaire ou unanime ba nga xamee ni mais pourquoi ñun on a un problème pour le faire Sénégal ñëpp d'accord nañu dañoo war a transformer ah Euh, bu fekkee sud bi la am nañ seen particulier loolu président Macky Sall sax bi muy toog wax na si mais pourquoi on a un problème pour transformer ñun li nga xam ne moom la ñuy produire fii. xam nga boo nee yow man damay dugg marché. pour togg suppu kànje ñu jox la dépense. nga ne lii laa jënd dinaa jënd kong fumé dinaa jënd lii ñu la dépense. waaw nga dem marché jënd leneen. mais loolu mooy problème bi si tu mets pas de l'argent dans l'agriculture comment tu vas développer l'agriculture am nga problème mu terre suuf si am problème mu ndox pour roose am na ñoo xam dañuy béy ba pare sax ñiy béy ay soble. waaw dañuy béy ba pare. di ko di ko yàqat di ko suul parce que amuñu fu ñu ko jaay. parce que soble bi boo ko béyee ba pare da ngay bàyyi koy bàyyi mu giif mu mu fendi ba ndox mi dem mu wow jigéen ñi dañ naan soble bi ndox kese la soble importation bi di leen di leen concurrencer amuloo stockage amuloo transformation. amuloo dara mais naka nga mun a développer agriculture et investisseurs yi lay lebal xaalis duñ la lebal xaalis pour nga développer sa agriculture nii sa pêche nii sa élevage dañ lay lebal xaalis pour nga def ay infrastructure ñu indi seen i entreprise jox leen ko main d'œuvre bi ci ëpp doole patron yi foofu la ñuy nekk dividende yi dem seen société marché. mais bor bi bor bi moom nee nañ moom Sénégal moom bor bi moo tax ba nga xam ne dafa nekk urgence ba sax pour investir feneen. mais mënoo investir boo boo nee gucc. boo nee boo lebee ba ne gucc doo siggi mënoo siggi yow sa problème mooy service de la dette chaque mois nga jël cinquante quelques milliards fay ko service de la dette boo ñëwee ñu posé la ay conditionnalité nga topp leen ñu lay defal ay ajustement jox naa la fii deux cent milliards jox na chaque mois nga def euh, obligation daal di leb cinquante milliards fay sa salaire taf nga suul bukki suuli bukki développement réew mhm. da ngay am un projet de société clair nga def les réformes qu'il faut ci fi ngay jëlee xaalis bi sa ressource naturelle moo ci jiitu nga seet naka nga koy exploiter ba mu indil la xaalis nga seet fi nga koy dugal mooy transformation industrielle nga seet naka nga koy jëfandikoo ci éducation ci santé diaspora bi nga dimbale leen ñu mun a investir dellu si nga def les réformes qu'il faut de l'état du travail de la commande publique donc loolu mooy sunu problème te Sénégal am na richesse boo xam ne. ci ay nit. am richesse boo xam ne ci ay suufam man day bokk naa ci ñi yaakaar ne Sénégal. bu ñu ko tegee ci yoon. fi ak diiru juróom-ñaari at kenn dootu ko xàmmee. te loolu moo nekk sunu changement de cap. et même au niveau africain le dernier chapitre le chapitre dix euh, ñu ngi ko intitulé s'ouvrir à l'Afrique dans ce chapitre dañuy wone <clears throat> lan mooy principe bu intégration africaine yi ëpp doole. xam nga fii principe intégration souveraineté solidarité non le premier principe mooy les richesses de l'Afrique ñu fexe ba kenn du ko aliéner n'importe comment mun nga ko utiliser mun nga ko fructifier comme tu veux mais munoo ci abuser nem chef d'État buy ñëw signer n'importe quel contrat sur des trucs nit ñi kenn du ko yëg amul règle amul dara assemblée du yëg ab avec ça nga da ngay développer hmm. donc moo tax ma ne leen est-ce que daf leen bett ñuy gën a ndóol <laughs> est-ce que da leen di bett prix di yokku est-ce que da di bett état bi dem ba dootul mënuñ financer éducation mu mm-hmm. privatiser wu mm-hmm. est-ce que da leen di bett nit ñi feebar du ñu faju est-ce que da leen di bett béykat bi ah li muy béy mënu ci dund mënu mm-hmm. ci denc tout d'un coup am problème d'ailleurs d'ailleurs tout d'un coup tout d'un coup en mars mooy début mars dañoo gis le président Macky Sall dafa jekk-jekk rek bon voilà priorité nekk emploi bi ah, pour emploi on en parle mais depuis quelque temps ñu jékki-jékki rek euh, kenn kenn déggatu ko est-ce que objectif yi mu bëggoon def ko atteindre wala daal euh, mi ngi noonu. laajal xale yi ci tronc d'arbre ba ndax am nañu liggéey. <laughs> non c'est non attends réew affaire bu sérieux la emploi li koy créer mooy nga dugal xaalis jël entreprise yi xale yi nga former leen ceux qui se lèvent tôt ah nga former leen ñu dem xale yi dañu dem ba formé tuñu et puis les travers dañuy dem di dugg ci yoo xam ni dugg ci ay drogue dugg mu mu ñëw daal di daal di ameniser seen capacité de mémorisation ameniser seen capacité seen attention ameniser lépp ba nga xam ne même ressource humaine bi ñu am sax dafa commencé na sax donc il faut une politique sérieuse mmh. foofu la Sénégal toll ñu dey loolu moo ñu dugal ci politique euh, pour jeexal euh, si si Guinée bi peut-être euh, gis nga la situation encore des coups d'État dans notre sous-région loolu ban commentaire nga ci indi. bon commentaire bi mooy que dafa am Afrique dafa am défi comme ni Europe aujourd'hui après Covid bi amee défi défi production. ak défi sécuritaire. ñoom loolu mooy seen problème dañu soxla main d'œuvre am nañ technologie am nañ lépp mais amatuñu main d'œuvre parce que beaucoup de gens ay c'est une population d'ailleurs vieillissante ba pare y a y a beaucoup de problèmes. Mhm. alors sécurité gis nga ko ñu ngi commencé génn même fi ñu nekkoon ay Afghanistan yooyu ils se la sécurité intérieure ah. protéger wu. parce que bëggatuñu développer expansionnisme. ensuite seen population yi dañu exigeante. dañuy laaj de l' agriculture bio ñu lekk n' importe quoi donc amuñu suuf buñ ko béyee. ils sont obligés de développer des politiques pour seen population ak seen sécurité. Mm-hmm. ñun Afrique wax naa la problème yi ñu am. problème yi ñu am mooy sunu alal la ñu jël tayle ko nguur yi gars yi jël xaalis bi di ko yóbbu. Mm. Sénégal dañu am ay défis yu bare ci défis yooyu nag. Mhm. état de droit daf ci bokk. Mhm. construction d'un état de droit durable ak respect àq ak yelleefu doomu adama dafa yàgg menacé wu. mais forme mooy changé am na temps ay coup d'état militaire la gars yi ñëw changé tenue ñi nekk ay maréchal ñi nekk ay truc loolu gars yi bàyyi nañ ko. bi bool amee ba gars yi commencé wax démocratie et tout avec Mitterrand ñu commencé def des régimes démocratiques mhm. ah, Euh, FMI commencé poser ay conditions démocratiques gars yi bokk ci. Mhm. léegi nag gars yi dañuy def coup d'état ba pare changer kii bi def ko costume. waaw ah ñëw organiser ay élections rapidement dellu si au pouvoir éterniser wu. léegi le problème de mandats se pose gars yi bëggatuñu ñu éterniser wu. Mhm. c'est de c'est de nouvelles léegi ñu ñëw ba actuellement nag ah nit ñi dañu am façon bu ñuy irrité wu boo demee ba léegi respecté woo règles yi. Mhm. gars yi dañuy militaires yi ñoo ñëw jël pouvoir. il faut condamner les coups d'État quel que soit Alpha. Mmh. il faut les condamner même su fekkee ne am na coup d'État yoo xam ne da ngay gis manifestement que population yi dañu kontaan. manifestement mais c'est pas un mode de dévolution du pouvoir il faut donc consolider l'état de droit ba nga xam ne dinañ def des élections libres démocratiques là aussi c'est un défi dans l'intégration africaine que les élections soient surveillées au niveau africain ou au niveau sous-régional. Mhm. nga xam ne dootul nekk rek une cuisine nationale nga xam ne waa ji lu mu déclare rek gars yi ne ok donc aujourd'hui en Guinée et c'est dommage. Mm. et gis nga conséquence yi maa ngi doon surveiller un peu euh, le problème de l'aluminium parce que mm. comme vous le savez Guinée moo yore le tiers de l'Afrique euh, de, de des réserves de bauxite. Mm-hmm. te bauxite la ñuy defaree aluminium. aujourd'hui les prix ont flambé. Mm. les prix ont flambé sur l'aluminium te dafa baax ci construction automobile léegi gis nga tous ces produits coup d'état bi rek le fekk amagul visibilité rek. prix yi dem na. Mhm. donc loolu yëpp dafa am ay conséquences. incertitude moo tax boo bëggee defar réew. paix ak stabilité daf ci bokk. moo tax il faut ñuy condamner les coups d'état. jàmm moo waral lépp. jàmm moo lal lépp. mais sinon benn question rek. waaw Adja Momar Adja sànq Babacar bi muy lim fonction yi nga xam ni am nga ko. nee na nekkoon nga fi secrétaire général ministère. de la coopération internationale. des infrastructures des transports aériens et de l'énergie. Mm yaakaar ngeen ni jaadu na loolu yëpp ñu teg ko ci mbagg benn nit jàppoon ni kooku njuumte la woon <laughs> ki ko ne ko woon mooy Karim Wade bañ ko doon dàkkantale ministre du ciel et de la terre <laughs> est-ce que xam nga ne mën lu waroon nekk la xam nga ne ñun moom moo nekkoon secrétaire général moom moo nekkoon secrétaire général est-ce xam nga ne ñun sunu programme dans le livre on a quinze ministres et on ah. a de grands ministères on a trente on a neuf secrétaires d'État on a 36 direction générales ci 36 direction générales yi appelle à candidature la ñuy def pour man ministère du fonctionné wul ci mbaggu ministre man sama réunion de coordination ministère il y avait directeurs. ba nga yore ak directeur ba ma ko yore te le ministre mosul participer réunion de coordination. Hmm. pendant trois ans benn yoon la ñëw réunion de coordination. mooy bi ñu nee mbir yi jeex na mu ñëw pour tàggu leen. pour la petite anecdote dafa am bës ma ne ko léegi dama bëgg nga ñëw réunion de coordination quand même waxtaan ak xale yi expliquer leen et mu ne ma d'accord jour bu ñu fixee réunion de coordination bi jour boobu la am incendie ba fële tamaru <laughs> donc pour te dire que imagerie populaire bi gars yi di wax ay affaire militaire bu ngand loolu yàgg na Sénégal il faut regrouper des grands ministère avec une grande cohérence mm-hmm. pour que maintenant nga jox leen les moyens. def fa les champs boobu amoon na cohérence manqué woon na coopération internationale non am na am na lu manqué cohérence énergie. énergie transport ah aérien du territoire infrastructure xam nga le raisonnement c'était simple il fallait trouver des financements mm. diversifiés pour le programme d'infrastructure loolu mooy première base bi donc il fallait prendre la coopération internationale et man j'étais pas d'accord que les tous les ministères tout la l'économie soit au niveau du ministère soloon ko seetloo remaniement bi mu génnee on avait dit ministre des finance donc on avait enlevé l'économie mmh. on a plaidé pour ñu delloo économie waa finance on a gardé la coopération internationale et boo ko seetloo décret attribution yi dañu jël les points sur lesquels on avait plus de possibilités de diversification diplomatie économique bi yéen a ko yore woon non Après. Ah, la partie bi nga xam ne par exemple les pays où il y avait un potentiel pour amener de nouveaux financements. comme chez les pays arabes yooyu. Ouais, exactement. léegi moom la ñu jël pour infrastructure yi moo tax euh, Dakar changé les infrastructures ni ñu ko defee coopération internationale inf li ci gënoon cohérent mooy aménagement territoire mais bi mu amee crise ou énergie ba ñu gis les compétences qu'il y avait dans le ministère ak la façon dont on fonctionnait. ci lañ jël décision jox énergie daal di récupérer aménagement du territoire il y avait aussi le transport aérien parce que il y avait l'aéroport qui était en construction donc c'est le volet infrastructure aéroportuaire moo taxoon il y avait aussi les infrastructures portuaires il y a de la cohérence il y a eu des des des points euh, qui n'étaient pas tellement euh, bien menés là j'en parle dans mon dernier livre Mémoire d'un soldat mhm. où j'explique toute cette expérience-là mhm. mais critique politique mhm. bokkul ak critique administrative mais ministère mag na ndaw na c'est pas ça qui est important c'est est-ce que ça fait le travail mais comme ça mais 15 ministres moom wala un peu plus wala un peu moins ñi ko wax bëri na mais ban garantie la ñuy am ñi koy wax di ko jëfee. mais à commencer par le président Macky Sall. waaw mais man xam nga man garantie man su may proposé dama koy expliquer. Abdou Diouf euh, Abdoulaye dans le livre je propose je, je dis comment je découpe les ministères. Mmh. il y a cinq ministres de solidarité. cinq ministres au niveau transversal. Mm-hmm. et cinq ministres euh, euh, ay infrastructure santé ak boo xam ne bii affaire sociale. d'accord ñu génne ko mais direction générale ñooy def liggéey bi. Uh-huh. ñun lu ñu wax dañ koy def incha allah. ah kon loolu moom na vous en faites pas. Momar gis nga gars yi ñu yëgal ni temps bi. temps bi jeex na mais <laughs> mais waxtaan wi neexoon na. waaw ah, waxtaan nañu Momar. xam naa ne am na lu bari li fi génne. Eh, dëgg la mm-hmm. euh, léegi nag ñuy xaar. le libre programme. <laughs> changer de cap. pour li nga xam ni mooy ay mébét ay loo naal. pour e, effectivement proposer ko Sénégalais de manière concrète. incha allah parce que nag taamu nañ ci woy politique yi. ñuy génne des propositions ay visions. parce que loolu lu am solo la quand même ci wàllu politique. c'est vrai président. sant leen. Eh, waaw gërëm leen vraiment ci seen compétence. ak euh, ni ngeen xamee réew mi. ni ngeen xamee préoccupation sénégalais. lii yëpp wax nañ ko. Euh, jublu ci defar. Mm-hmm. waaw euh, defar nag ak yàq bokkul. waaw kon nag euh, yéen yéen a ngi defar yàlla yàlla may kattanu defar ba sunu réew mi ñu am bokk ko ñun ñëpp. Mm-hmm. Euh, ñëpp mun ci gis seen bopp. amiin amiin jërëjëf. merci beaucoup président merci. merci également téléspectateurs yéen ñi ngeen di xam ni yéen ñu seetaan noonu ñu leen di jox daje mercredi prochain avec euh, notre invité au revoir.